bëccëg bu tàng jër nag la nemmeeku fi nga xamante ne moom mooy ca ndakaaru ak ci yenn mbedd yi bu ñu sukkandikoo ci suñu nattangooy euh, journaliste yi nag fi nga xamante ne moom mooy ca Mermoz jamono ji nag ak Auchan lañ fa daal di attaqué li nga xamante ne moom mooy benn partie mur waaye nag ay bisu dem ndikk nag jamono ji nemmeeku ne ne taal nañ ko ñi ko taal jamono ji nag kenn xamul lan la waa nag dinañ ci ñëw ci yenn ni joto ay xibaar